وسباني الله في كرمبسا خبر مبارسي واني خلبسا الحمد لله بنو حميتي واجا نيوون بسام بسام بموري الحمد لله بنو حميتي واجا نيوون بسام بسام بموري samedi la 21 Touba Treichville falan ñu tàmbalee na ngeen fa ñëw teel dimanche le 22 la ñuy xëy dem basam mooy fa Serigne Touba jaaroon jar naa dem Cheikh Murtada Mbakkeem Serigne Abdou Ahad moo jiite mbir yanan njukkal buur ba ahaat Serigne Sayxuna Mbakke imaam ju sell man ca kanam yoonam du doof du dëll xaalim la bis la mat na imaamu taala mbayal na tàkk bum xëy giimu Serigne Magumba Caam ku baax ta yaatu man kanam yàlla na mbiram ya moo jiite murit ya ne treize na ko buur ba jox la muy mébét teel sëñ Baara Faal moo jiite waa ajamme mang ca kanam ku way fa bis ba jommi waa xidmatul xadim ku di muriidu na ñëw fa baasam ndax mu xam tawhiidu Sëriñ Tuubaa ngir fu mu jaar ba jàll jar na siyaar waaj leen ko ndax ñu jàll liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo gën ci dun ya ku weddi li xaaral ba gis ru jàll ya sëriñ Cheikh Faye man baa ci nag ñu defal keffe gu neex te xeeji